alhamdulillahi alxaaliqi alraziq almuxyi almumiit axmaduhu xamdan yaliqu bihi taala wa yuwaafi mazida nicamih wa usalli wa usallimu ala mazhari rahmatih sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi ajmain wa baad faalamu ayuha alixwatu almuminuun anna al ibaadata allati min ajliha xuliqna naxnu thaqalayn tashmalu muxtalifa jawaanibi alxayaa fa hiya kullu ma yuxibuhu allahu taala wa yardaahu min al aqwaali wal afcaali alzaahirati walbaatina wa alayhi fa yajibu ala almuslimi an yakuna caabidan lillahi taala fi kulli makaan caabidan lillahi taala wa huwa fi almazracati wa fi almasnac wa fi suuqi wa fi lmaktabi wa fi lidaara wa fi lmadrasati wa fi lbeyti wa bayn al ahli wa ala alfiraash kama yakunu aabidan lillahi wa huwa fi lmasjidi wa ala alsajjaada wa hadihi alcibaadatu bi hada almaana alcaam ayuha alixwatu almuminuuna xaqu llahi taala ala abdih xaqu llahi taala ala cibaadih yajibu alayhim jamian an yaqumu biha lillahi waxda wa bil kayfiyati allati araadaha allahu subhaanahu fa man abaaha fa huwa mustakbir yashmaluhu qawluhu taala inna alladina yastakbiruuna an cibaadati sayadxuluuna jahannama daaxirin wa man abadahu taala maa gayrihi fa huwa mushrik wal ishraaku dulmun laa yugfar qaala taala inna allaha laa yagfiru an yushraka bih wa man abadahu taala wahdahu bi geyri ma chara fa huwa mubtadi wa libtidaau yujibu fasaada al amali wa radda qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man axdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd wa ila hada almaana ashaara alabdu alxadimu qaddasa allahu sirrahu xiina qaal wa man tawajjaha ila gayri illahi fa sa yaclamu annahu la ilaha illa allah wa man tawajjaha ila allahi bi gayri muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa sa yalamu anna muhammadan rasulullah wa kadalika qawluhu radiyallahu anhu laa tafcalu shay'an bi gayri idni fal idnu shartun fi qabuli sha'ni wa inna li hadihi alcibaadati ayuha alixwatu almuminuuna thamaratin mufida laa tacuudu illa lilcabdi alcaabidi faqat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 mbokk yi di fàttali sama bopp di fàttali ne jaamu yàlla jaamu gi nga xam ne moo tax sunu borom bind ñu nun nit ñi ak ginne yi jaamu googu maanaamu yaatu la ñu bari fi ñu koy yemale weesu na ko jaamu yàlla mooy lépp loo xam ne yàlla bëgg na ko ci ay wax ak jëf yu feeñ ak yu nëbbu mooy kon nit ki léppam jaamu yàlla lay doon loolu moo tax ba ab jullit war na yëg saa su ne ak fu mën a nekk ni moom jaamu yàlla la loolu war naa feeñ ak dundam ci jëmmam ak jëfam ak jëflanteem ak fu mën a nekk kene ca toole di bay na jàpp ne jaamu yàlla buy bay kon am na lu ko yàlla bay loo am ko tere ku xam loolu doo bay ñax moo xam ne nit ñi dañ koy jëfandikoo te yàlla araamal ko mu leen di lor di leen yàqal loolu war nañ koo xam waaye kii nga xam ne it dafa nekk ci ab usine di liggéey na yëg ne jaamu yàlla bu nekk ci barab di liggéey la barab booba am na la muy liggéey am na nu ko yàlla bëgg am na lu mu bëgg ñu liggéey ko ku xam loolu du defar ci usine wala du nekk ci usine boo xam ne ña ngi fay liggéey jumtuwaay yoo xam ne nit ñi koy jariñoo da leen di lor di leen yàqal bu nit ñi dundoon lu mel noonu bari na tey ay jumtuwaay yoo xam ne ñëpp xam na ne lori kese la ba noppi teewut ñu ngi koy liggéey te barab yi ñu koy liggéeyee ñàkkut ni ay jullit dañ fa buñ ko moomut sax nañ bàyyi xel ne ab jullit daa war a doon ab julit fu mën a nekk boo nekkee ci ab jaay di jaayee jënd it jàppal ne julit jaamu yàlla ne ci ab jaam am na lu yàlla jaaylu am na nu mu jaayloo nga di ko bàyyi xel ci lépp loo xam ne day tere ku ko jaay du ko doo ko jaay waaye namu santaanee ne noonu la war a jëflante ci jaay ak jënd nga di ko bàyyi xel boo nekkee ci bureau di liggéey it na nga war a nekkee li yàlla bañ ci jëflante ak li mu bëgg nga bàyyi ko xel kuy jàngale di yare it mu xam lu mu war a jàngal nañ lu mu war a yar am na loo xam ne nit ñaa ngi koy jàng ci ay barab jóge ci di yàq adduna di yàqal ñeneen te dañ leen ko jàngal ab julit warut te jàngale lu mel noonu ndax daa war a yëg ne ci daara ji mu nekk yàlla la fi nekkal kon bëgg-bëgg yàlla la fi war a nekkee waaye ci sa biir kër ak sa biir njaboot jaamu yàlla nga du rek nu la neexee wala noo bëggee waaye am na nu yàlla mi la bind bind njaboot gi boole ak ñoom am na nu mu bëgg nga jëflante ko ngay bàyyi xel loolu it war na julit bu ne boo tëddee sa kaw laa di nelaw sax du caagee ne nu la neex tëddee fu la neex jëmale tànk déedéet ab julit dañ koo moom yilif ko ci wet yëpp lu ci nekk kon war naa xam lu ci yàlla taamu lu mu bëgg mu defee ko noona ni ki nga xam ne tey boo ñëwee ci jàkka ji moom gëm nga ne yàlla nga fiy jaamoo si kese jàppal ne ci barab yooyu ñu wax yëpp it ñoo jàkka ji ñoo yem ci yow fu ci nekk lañ fi soxla rek mooy nga nekk fa ne yàlla bëgg boo ko defee yaa ngi jaamu yàlla waaye soo fu nekkee wut nag lu nur nur ak jaamu amul njëriñ mbokk yi jàmm yàlla ci maanaamu yaatu moomu ak yàlla joo xam ne jaam ñi dañ koo ameel seen boroom du mbir moo xam ne dalay lay coobare wala da lay gën a wala da lay wala da lay neex wala dangay sawar di ko def àq la joo ameel sa borom boo xam ne ñëpp dañ ko war a def kenn amul sañ-sañ ci bàyyi ko ndigalul yàlla su lu mu digal jaam ñëpp dañ ko war a def waaye yàlla rek lañ ko war a defalee nag yàlla rek moo yeyoo ñu di ko jaamu moom rek moom yàlla moo yeyoo ñu di ko jaamu waaye it dañ ko war a defee ni mu ko bëggee ñetti mbir la yoo xam ne. benn bu ci manqué rek jaam bi doonul li mu doon matul li mu doon ku jaamuwul yàlla walla nga jaamu yàlla jaamul leneen wala nga jaamu yàlla ci anam goo xam ne bokkut ak ni ku yàlla tërale mu cëgoo moo tax ne képp ku lànk ba ñu jaamu yàlla kooku nit ku rëy lay doon dañ koy jàppee ku rëy rëylu yàlla andi ko ci suuf ne ko wàccal mu lànk bañ a wàcce boppam borom bi neen na bu yomal xamee lam doon lam doon jaay ci àdduna dinaa ko toroxal doya dal ko yóbbu ko sawara yàlla nu ci yàlla musal koo xam ne it day jaamu yàlla waaye da cee boole jaamul leneen dul yàlla kooku bokkaalekat lay tudd yàlla du bokk kuñ ko booleel mu bàyyi ko te nee na lépp lépp laa mën a baale ba mu des bokkaale du ma ko baal kenn moom kon dañoo bëgg ñu jaamu tey jaamu yàlla rek loolu la ñu sant ñetteel ba mooy nañ jaamoo yàlla ni yàlla bëgge yàlla bañ ku ko làmbatu wala kuy defee nu la neex kuy topp bakkanam moo tax mu tànn ay yonent jox leen i téere yonent yooyu sax seen yoon nekkul ci diine yi jotul rek lañ ci am waaye yëfi yàlla la ñu doon ko jot li jaamu yàlla yi nit du fétal nii laa ko mane wala nii laa ko juboo wala nii laa ko bëggee déedéet jaamu yàlla gi ñu wax mooy nii la ko yàlla jub bëgge defe ko noonu soo bëggee mucc faaw nga bàyyi xel loolu kon ku jaamuwut yàlla ci anam ki ko yàlla bëggee kooku mooy kuy topp bidaa mi ngi jaamu yàlla yàlla rek lay jaamu waaye nag moo xàllal boppam aw yoon wala am xelam lay déglu kooka ab toppkatu bidaa lañ koy tuddee te yonent bi ay salaam noonu nag sunu mbir mii di diine ji lu ci waaye dolli te bokku ci dañ ko koy delloo boo liggéey ñu delloolu sa jëf nag amul la njariñ yàlla nangu jëf yi bindal la ci tiyaaba yóbbu la aljana mooy njariñ waaye lu say jëf bari bari ñu delloo xëppaat la ko amul benn njariñ kon mat naa moytu baax a baax mbokk yi xam ne eh, ni ñuy jaamoo yàlla yit du caagee dañuy fétal waaye dañ ko war a xool ni ko yàlla bëgg ñu defe ko noonu loolu sunu sëriñ Cheikhul Bamba radiyallahu anhu yàgg na ci soññee ba mu nekkee ci bato ba noonu yi di ko yóbbu ci boo di Guinée daje dafa ak benn waaye bu ko gis nuyu ko di ko ñaan mu dénk ko bokk na ci dama ko dénkoon ne ko képp ku jublu jëm ci feneen fu dul yàlla bis dana ñëw mu xam ne yàlla rek yàlla fu mën a jublu bu ëllëgee te du yàlla bis dana ñëw nga xam ne yàlla rek yàlla kon mi ngi ko doon jàngal ne yàllaa ñu moom dañ ko war a jaamu te moom rek lañ war a jaamu waaye ne ko ku jub jub jëm ci yàlla it jaar feneen fu dul ci Muhammad alayhi salaatu wasalaam bis dana ñëw nga xam ne yàlla rek Muhammad la yàlla defoon ndaw kon mooy li ñuy jaamu yàlla it duñ ko féetal waaye ci sunna yonent bi ay salaam la tegu diine yonent bi alayhi salaam ngi cee génn ku mu néew ci kanam rek jaaroo yoon loolu it mbokk yi baax nañu di ko bàyyi xel di ko fàttaliku moom la jublu woon bi muy waxit ne bu leen def dara ci lu dul ndigal diine dafa dafa am nu mel noo xam ne lii jub ci am xel léeg-léeg day dëng ci diine moo tax dees ci wéyum xel dees ci wéy njort rafet waaye dangay xam moo tax lépp looy dugg ci diine bala nga caa dugg war nga koo jàng ba xam ko wala nga laaj ko koo xam wax la ko nga door ko def waaye nunguwut fetal te léeg-léeg nag suñuy mbir ci diine ji ak yoon wi ay nit di tànn ay yëf yoo xam ne boo leen laajoon fu ñu ko jël duñ la lii daal dama ko yëgee nii rek diine du yëg mbokk yi du ko yëgee nii nii la ko yàlla bëggee loo fi def na am dalil ko sec boo bëggee am boo ci bëggee jariñu bari na ñun léegi loolu ci yoon wi ñu fent ay yoon am na ñuy dunde loo xam ne jëlewuñ ko sëriñ bi du diine ju ñu xam koo ci laajit dalay wax dara du leer du la ko wax loolu mbokk yi amul solo te it nag di sonn te doo jariñu bari na bàyyi xel ñaq jariñu wala foo koy wax waaye njuumte la ñaq yëpp amul njariñ am na ci ñaq yoo xam ne amul benn njariñ li wér ci wolof mooy jëf jël looy def da ko jël moom bu dee lu baax dee safaan waaye ñaq ci lu am njariñ mooy tax jariñu mat naa xamee léeg-léeg nit di ñaq di sonn ci mbir lool te boo ba ci biir doo fekk dara loolu it du ma tax la ab jaam di sonn ci loo xam ne amul ko njariñ jaamu yàlla mbokk yi yi ay ay njariñ rek ci nekk waaye mboolem la ci nekk ci ay njariñ it jaam ñi nañu xam ne ñoom ñoo jaam ñoo ko moom kenn ci nun defalu yàlla dara yàlla màggam mooy ak mooy koo xam ne topp yàlla du ko jariñ dara waaye mooy ko du ko wàññi dara bu jaam ñëpp maase woon di mooy du tee yàlla di yàlla bu ñëpp maase woon topp ndigal bàyyi tëram yëpp du yokk dara yàlla kon baax na ñu xam ne li ñuy jaamu yàlla yi ñun lay jariñ buñ ko moyee ñun ñoo ci loru moom mooy yàlla démb ak njëkk démb ak bu ëllëgee ak ginnaaw ëllëg kon loolu it baax nañu di ko xam di ko bàyyi xel suñu yëf defaluñu yàlla dara suñu bopp la defal kon war nañ cee sonn ndax bu amee bu rafetee baaxee ñun ñoo ci jariñu waaye bu ñaawee ñun ñoo ci loru bu ko defee mbokk yi ñu bàyyi xel baax a baax ne jaamu yàlla it nag daa am ay dawa bi di ko tënk ni ko waxee léegi du lu ñuy fétal lu neex def di jiitu mooy nañ xam ne mbir la yoo xam ne dañ koy teg ci ndigal kenn du fent yoonu boppam di ci jaamu yàlla kenn amu ci sañ-sañ kenn du fent yoonu boppam di ci jaamu yàlla ni yàlla bëgg rek ngay defee mu door laa jariñ waaye saa boo fentew sa yoon kon xalaat ak bànneex amu ci yoon waaye sama wa taan rek la la yàlla waxoon yonentu ay salaam fastaqim kama umrit jubal jub gi fu mu jaar ni ma la ko digal rek kon fii li ñu war lii lu baax mooy lii ngay def fokk teg nga ne yàlla ma ko digal fu mu la ko digalee ngeen barab sàngam jeex na ndax am na gis nga ci njariñ gis nga ci xikam gisoo ko ndax am na ci loo xam ne boobu jéemoon a xam ci xel ab delluwaayam doo ko xam mukk ci àdduna kon du mbir mu ñuy tënk ci am xel bu rafetee sam xel nga defa bu ñaawee nga def am xel matut ak manqueem moo tax yàlla yebal ay yonentu jox leen i téere loolu baax na mbokk yi ñu bàyyi ko xel baax a baax waaye ñu bàyyi xel it ne jëf ci jaamu yàlla dafa aajawu sellal bu raxee dara du yàlla yàlla génn ci bu raxee dara dul yàlla yàlla génn ci moo tax njissal dañuy wax ne bokkaale la ndax kii mooy mi ngi jaamu yàlla waaye mi ngi bàyyi xel jaamu yàlla yi léeg-léeg ko bu nit ñi teewee mu rafetal jaamu gi lool bu nit ñi fàddoo mu ñawal ko kooku ma ngay bàyyi xel ku dul yàlla ci jëfam dañuy wax ne koo xam ne teewaayu nit ñi ak seenu fàddu day jeexital ci say jëf yaa ngi sal képp koo xam ne teewaayu nit ñi day jeexital ci say jëf wala seenu fàddu yaa ngi sal waaye jaam bi moom ni mu war a jaamoo yàlla ñépp ne fi ak kenn bañ feneen ci waree loolu it mën na bàyyi xel kon bu ci sedd ci jaamu gi dul yàlla keneen amul cër ku yàlla sunu borom subhanahu wa taala niñ koy defee it nag benn royuwaay lañ am bu ñu koy jëlee mu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ku ngeen gis ñu di ko fi roy rek dañoo gën a jege yonent bi ku ñu gis ñu di ko roy teg ko ci suñu kanam dañoo gën a jege yonent moo tax ñu di ko roy kon ku sori yonent bi du roy waay kenn waru ko roy loolu it baax nañu xam ko mbokk yi tey roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne moom bokk na ci li mu doon wax julli leen ni may jullee ajale nii may aje dafa doon jàngale ne ci diine li ñuy def yàlla ku ko sant moom mu di ko jotliwaat nit ñi waaye kenn waru cee demee am xelam wala nii la ma juboo te loolu yi nag mbokk yi ci sunu yoon wi mi ngi tàmbali tasaaroo lu ñu mat a bàyyi xel la du lu ñuy fétal diin di su féetal dara te sëriñ bi waxoon na ci soññee ci bu leen def dara ci lu ndigal bay du mat dégg la te mat koo yaatal fi ñu ko yemale yemu fa ci lépp la doon lépp mbir moo xam ne nit nga ci jëngu rek bu ci amul ndigal amul njariñ kon war naa xam lu ci diine bëgg bala mu ko def jaamu yàlla yi nag daa am fu ñu ko yemale am na yoo xam ne ay waxtu la am dee su ko yeexee dee su ko jiital julli mii tey loo bari bari sa cawarte boo jullee te waxtu jotul jullee julli woo ramadaan mii di ñëw bu ak seegut ko waroon weer yi du tee boo dikkee waroon ramadaan war la yooyu yëfi yàlla doon rek fanweeri fan la woor na war a woor fanweer déedéet ni mu ko tënkee noonu nga koy tënkee fi mu ko yemloo fa mu ko yem deesu ko dolli deesu ko wàññi rakka yi jullilu asaka yi joxe fenn fu nekk fam fam ñu yemlu fa la war a yem loolu moo ñu xamal ne mbir mi teguwut ci am xel waaye ci diine la ak bëgg-bëggu yàlla soro bi minu moom jaamu yàlla yi nag du wàcc nit fii yaa ngi doon mu kàllaf jaamu yàlla di nekk ci saw loos jaam bi diggante diggante ittaqullaa xaqatu xeeti ak fa laa mastatatum la nekk ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla mooy def ko nu mu gën a mate mbaa nga defee ko ni nga ko manee bu la wéradi wala gàllankoor jote waaye diggante boobu ngan amu fi moo taxoon euh, di jaamu yàlla ba faatu rek loolu santaane woon sëriñ bi wax na ci Masaalikul Jinaan ay nit ñoo xam ne dañoo waru di wax ne buñ àggee ci wusuwul jaamu yàlla wàcc leen sëriñ bi ne dañoo juum ndax waabud rabbaka xatta yaatika al yaqin ja ca suuratul xajri ca mujj ga moom lañ firi juum ca ndax dañ koo firee jaamul yàlla ba yaqin dikkal la saa ba wóolu yàlla rek àgg nga jëratu nga jaamu yàlla sëriñ bi ne yaqin jooju dee lay firi firiwut wóolu jaamul yàlla ba dee dikkal la kon mbokk yi fi nit ki nekkee mu kàllaaf ak fi muy faatoo jaamu yàlla du fi teg ci awloo sam demoon ba wéradi mënoo lu dul xefa xeppi war ngay julli di xefa xeppi yéene ci sujjóot ak rukkoo loolu danañ ko jàng ci téere yi kon jaamu yàlla du wàcc nit loolu war nañ koo xam bàyyi ko xel foo na mën a nekk ñun nag lu tuuti moo lay dal rek nga ne taluma ko taluma ko te koo xam ne boo demoon ba yëngalub cër nga man sam xel na ci jaamu yàlla jaamu yàlla wàccu la dafa nañ ko mën a rek waaye du la wàcc loolu it mbokk yi baax nañu bàyyi ko xel baax a baax moytu jamono yi nga xam ne nit ñi yàqal nit ñi ak lu leen di dox seen diggante seen nit dafa tasaaroo yàlla nu yàlla boole dimbale alhamdulilahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wasalaatu wasalaamu ala maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa baad fa inna li hadihi al ibadati ayuha al ixwatu almuminuuna dawaabita la budda minha li sixatiha wa qabuliha wa min hadihi dawaabit anna al ibadata tawqifiyatun la majaala fiha lil rayi wala lil hawa walakinaha samcun wa taaca kama qaala taala fastaqim kama umirt wa annaha taxtaaju ila al ixlaas fala xafda fiha li gayri illahi taala alqaail wa ma umiru illa li yacbudu llaha muxlisina lahu ddin wa anna kayfiyataha innama tuxadu min alqudwati alxasanati alwahida alqaail sallu kama raaytumuni usalli wa annaha maxdudatun wa muhaddada bi mawaaqita wa maqaadira yajibu taqayudu biha jumlatan wa tafsila laa tuqaddam wala tuaxar wala tuzaad wala tunqas wa annaha la tasqutu an alabdi almukallafi maadaama xaya fa huwa bayna qawlihi taala ittaqullaha mas ittaqullaha xaqa tuqeeti wa bayna qawlihi taala fattaqullaha mastataatum hakada xata yatiya alyaqin alladi huwa almawt qaala cheikhu alxadimu radiallahu anhu wa yaddaci albaadu alwusula taarika cibadatin xata yasira haalika wa garrahum fi daka suu lfahmi wa danasu lxijaabi gayri lcilmi wa fassaru wa fassaru lafsa alyaqini bilyaqin fi axiri alxajri bila mawtin yaxiin allahuma axyina ala alimaani wa amitna ala alislaam wa axshurna gadan maa sayidi alanaam wa askinna aljannata daar assalaam allahuma jaal taqwaaka zaadana wa thiqata bika duxrana wa amin min aljuuci walxawfi walfaqri walmaradi bilaadana wa saaira bilaadi almuslimina amin ya rabbal alamin aqulu qawli hada wa astaxfirullaha li wa lakum wa li jamihi almuminin fastaxfiruhu min kulli danbin wa tuubu ilayh